artisan yu réseau yëpp ñëw si ñu gis seen xarañte ah donc vraiment je pense que nekk na euh, initiative boo xam ne lu ñuy rafetlu dafa dafa ci li xam ne par moom la président bëgg ministre bëgg ko ñoom ñu koy doxal te bëgg nañu mu nekk loo xam ne ni toujours dafay continuer parce que artisanat moo mën a développer Sénégal. moo mën a tax ñu jox ko ab euh, ministère waaye terewul tamit mën nañu gën a yokk jéego yi gunge artisan yi ci Sénégal li ñuy wax Sénégal pour jeex ci wàllum concurrence exemple si tenue scolaire yi ñu ngi ko jox tayru Sénégal yi loolu mën na dem ba law si lépp ba nga xam ne lépp lu nga xam ne dañ ko soxla duñ ko jéggaanu ñu defal ko si réew mi donc loolu mooy li nga xam ne mooy vision bi ñoom nag ñoo ne vision bi nga xam ne président am ko ministre am ko gouvernement am ko ñoom que vraiment ñu bañ leen gàcceel te xam na ne am nañ capacité bi donc li des nag mooy góorgóorlu ba ëllëg si biir aussi lépp lu ñu soxla Sénégal ñu mën ko am ba pare aussi produit sénégalais yi fépp si mi